am na benn point bi nga xam ne. Mhm. il faut que Sénégalais xam report bi fan la nar yóbbu Sénégal de 2 avril. pour man 2 avril il faut que nit ñi sóoraale date bu am solo la. Mhm. parce que avril mën na Macky Sall dafa war a jeex. Mhm. donc loolu moo tax report bi ñu ci ànd expliqué nañu pourquoi ñu reporté ko. Ah, mooy Benno Bokk Bokk Yaakaar. ak PDS. mais xel nangul loolu. Mm-hmm. ak bun John man loolu bett na xel xel nangul loolu. parce que constitution quand am na fi mu teg euh, mandat président mm-hmm. am na fi mu teg assemblée. am na fi mu teg conseil constitutionnel. Mm-hmm. ce qui fait que euh, pour man lu am solo mooy ñu sóoraale ñu ngi ci dans une crise de gouvernance à partir du 2 avril dinañu nekk ci crise de gouvernance parce que président bi. même bu fekkee am na euh, un euh, onze mois c'est ce qui est extraordinaire c'est que l'Assemblée n'a pas été prudente parce que on aura un président dérogataire mmh. c'est du jamais vu qu'un président euh, dirige un pays avec euh, une dérogation de de onze mois c'est hmm. ah, peut-être que dinañu ñëwaat sur la dérogation le pourquoi c'est un danger mmh. qu'un président dirige par euh, une loi euh, de cette, de, de cette nature beneen aspect bi je pense que presse bi wane na ko c'est que ce soit la société les universitaires les partis politiques ñoom ñëpp tey ji am na quand fu ñu d'accord mooy que bañ report bi et ça ça veut dire que on va vers une crise c'est-à-dire que ñu ànd ak président pour mu reporter à partir d'avril ñoom dinañu nekk ci gannaaw président mais ñu ci àndul du duñu reconnaître légitimement le président la République parce qu'il n'aura qu'une dérogation mmh. ça veut dire qu'on va vers euh, une crise de, qui ne son nom une crise de, de gouvernance euh, démocratique mais une crise institutionnelle hmm. mooy lu ñu doon ragal gis nga euh, troisième mandat bi en réalité moo ñu rattrapé loolu moo rattrapé Macky Sall. Hmm. li mu waxoon génn na ci génnu ci en réalité parce que bu jigéen noonu du nangu sax après le 2 avril moom sax wax na ko aux Nations Unies si c'est quand même grave que, président de la République dem taxaw ci tribune des Nations Unies ne tàggu naa leen la prochaine session c'est mon successeur qui va venir ici. Mm-hmm. bon loolu la wax euh, tous les guides religieux loolu wax euh, l'opinion ah, bi voilà s'il revient sur ça c'est quand même sa parole qui est à la limite en danger et je ah. pense que suñu comprendre la réaction de la CEDEAO bon xëy na dafa leen bett mais c'est plutôt que ils ont peur hmm.